salaamaaleykum téléspectateur u Equivox TV ñu ngi fii ci université Cheikh Anta Diop ci marché bu ñoo lànk def ànd ko ak euh, étudiant wu Cheikh Anta Diop bi ñu bàyyi leen ngeen xool ambiance bi nu mu demee ñu interroger quelques citoyens yi nga xamante ne ñoom lañ fi fekk voilà nañ dem ba nawet bi yàlla mënul a xaaj nañ gars yi foofu doog a avancé Fallou mooy jël courant di ko séddale sous région bi te dëkkam courant bi dafay cher beneen bi ci topp gis nañ ay ndaw yoo xam ne ñu ngi bokk ci seen parti ñoom dem def lu raw li Guy Marius Sagna def fële ca palais de la waa ngeen gis ñu ñu ngi ñuy taxaw ak Moussa Taye di conseil politique gu Khalifa Sall monsieur Taye ñu ngi lay nuyu. ma leen di fay bu baax. ñu lay laaj lan moo waraloon sa tànk ci marché yi. ñëw pour xeex pour ñu libérer Guy Marius bi nga xamante ne deful dara ñu jàpp ko te ko ci bi beneen bi mooy xeex pour wàññi courant bi ak njëgu ceeb bi ak njëgu diw bi ak njëgu meew bi. est-ce que yaakaar ngeen ni Macky dina ko bàyyi. Macky dina ko bàyyi amul choix parce que ñun nañu xeex bu mu bàyyi ko tan que bàyyi ko duñu noppi ñun di xeex bu ñu bàyyi ko. jërëjëf ñu ngi lay bañ. marché calmement et dans la paix. te kenn kenn mënuñu perturber. on connaît ce qui se passe. on sait ce qui se passe. ba tey téléspectateur Equivox yi ñu ngi fii ak Pape Touré mi nga xam ne moo représenté étudiant wu ñoo lànk yi Pape Touré ñu ngi lay maa ngi leen di fay di fay ñu euh, ñu seetaan à travers votre couverture médiatique. ok Pape Touré ñëw nañu yéen bëggoon marche accordé nañ leen marche bi mais marche bi tombeek euh, seen anniversaire wu décès wu Balla Gaye ani lan nga ciy wax. waaw di ko rafetlu parce que euh, normalement marche bi c'était prévu le 24 janvier passé mais ñun ay étudiants lañu te dañoo bokk ci ñoo lank parce que boo xoolee le vingt 29 bu ñuy jàpp 9 personnes yi 5 yëpp ay étudiants lañu woon étudiants yooyu ñoo sàkku ci waa ñoo lank la waay. yóbbu leen ko ba le 31 janvier parce que ça sera un jour symbolique un jour historique pour tamit euh, ñu rendre hommage ñi nga xamante ne mooy suñuy martyrs lu ci mel ni Balla Gaye tey anniversaire am waaye tamit moom Diop mi nga xamante ni pertoon na ba ñàkkoon na bakkanam en 2012 rendre hommage également à tous les autres bu ci mel ni euh, Fallou Sène bu ci mel ni Bassirou Bassirou fay ak ñeneen ñoo xamante ni ci forum bi lañ ñàkkee seen bakkan pas pour leurs intérêts personnels mais pour l'intérêt général des étudiants. lan mooy perspective étudiants ñoo lànk waaw xam nga le mardi passé defoon nañu point de presse wane suñu euh, dugg ci suñu intégré ci li nga xamante ne mooy collectif ñoo lànk ñun ay étudiants lañu waaye nag bu kenn fàtte ne ay citoyens sénégalais lañu avant ñuy nekk ay étudiants donc problème problèmes qui préoccupent notre société doivent être notre principale préoccupation moo tax ñun tey ñu teew fi en tant que qu'étudiant. Parce que moi, je suis à la faculté des sciences juridiques et politiques. Il y a plus d'étudiants que, que, que Nyenen. Donc, les étudiants étaient venus au marché, ils sont venus massivement, on est que cette population est bok que d'accord, nous, qui hausse illégale des prix de l'électricité, mais également pour exiger comme niñ ko defee bu ñu jàppee suñu camarade yi ci kaso bi comme ñu ko defee bu ñu jàppee suñu professeur docteur Babacar Diop ñu xeex bu mu génn tey bëgg nañ amaat taxawaay bu mucc ayib pour ñu libérer ki nga xamante ne mooy Guy Marius Sagna. ñu tase un kii mi ngi tudd bàyyi ba ñu bàyyi ko mu présenté wu. maa ngi lay fay. lan moo waral sa tànk ci marché jaaxle jom mi rek ba tax ni ku jógul doo gor liñ naan euh, réew mi li ñuy dund léegi ñëpp a ko yëg amul ku ko yëgul yàpp mbaam araam na mais ñeex mu araamut ñëpp moom la ñuy dund ba ci imaam yi ñoom ñëpp yàpp mbaam araam na ñeex ma araamut xam nga lu muy signifié liñ doon bañ démb lañ nangu tey. li fi ne nag xam ngeen ko dund ngeen ko ñun ak yéen a ko dundandoo ay liggéeykat lañu nag borom jom lañu dañuy def li ñuy def waaye kenn mënuñoo xoxatal jàpp bi métti na korompi bi nekk ci dëkk bi métti na. ñëpp nag laa wax bàyyiwuma kenn pàcc boo laal korompi nga fa ma dolliwaat waxaat ni li fi nekkoon ba bañ bañ ba yàlla di ñu dimbali xalifa diine yi nekk fi di ko wax léegi gisatuñu ku koy jooytu kenn jooytutu ko. ku dul ku dul ki nekk ci keppaaru boppam sama bésu maam sama bésu bàjjen sama bésu yumpaañ loolu doo nga fi am. léegi gis nañ la léegi léegi nga naan nañu tudd ñoo xam ne dañoo sàcc ani ñan ñoo sàcc fi. waaye sàcckat yi xam nañ leen. sàcckat yi ah, rakku Macky Sall ci la bokk. Marème Faye Sall sax sàcc la Macky Sall sàcc la ñoom ñëpp ay sàcc lañu dégg li ma la ñoom ñëpp giñ naa ko ci seexal lislaam ay sàcc lañu ndax loolu la ñuy dund gisoo leen maanaam autorité bu nekk ci réew mi. wallahi lasi boo xoolul boo changé wul sa deret yaa ngi boo deful jalis yaa ngi dem diabète lay rey wala tension wala arrêt cardiaque ndax riba bi ñuy lekk réew mi li fi ne xam nañ ko ndax fi na ne nii ñoom seen jëmmi bopp man bu ma doon jaaykatu yàmbaa léegi ñu daaneel ma xam nañ xam nañ jaaykatu yàmbaa yëpp waaye sàcc yi xam nañ leen nañ leen daaneel te bàyyi li ñuy dund yàpp mbaam araam na mais ñeex ma araamut loolu du am ci réew mi dafa am ñu koy nangu nag am na ñoo xam ne dañoo toog ci keppaar gi mu neex ci ñoom xalaatuñu ñu ñuy rey xalaatuñu ñi nga xamante ne bu ñu añee duñu reer ko góorgóorlu nekk ci sa réew di góorgóorlu ñu indi étranger yoo xamante ni dañoo ubbi frontière bi di def lu leen neex rey yi bëri loolu doo nga fi am ñoom ñooy reykat yi. lan nga xalaat ci détention Guy Marius Sagna bi. Guy Marius moom moom doomu góor la xam nga lu tax ma wax ko mooy bi mu méttee dëgg dëgg dëgg dafa taxaw kaas ba lii jur lii tey ñu jël ko téye ak ay moroomam bàyyi ñële kum am ndey kum amul ndey la mais man gawuma ko. li war sama tànk retraité yi dañoo dee ñu retraité yi amatuñu dara ku ci feebar boo demee IPRES bala docteur seetee buñ la buñ la ordonnance mu ne ordonnance amul lu mat juróomi at a ngi ordonnance <coughs> garab amatu fa léegi bu fekkee ñoom amuñu garab nañu def photocopie yaboon ci eh, pharmacie mu jox ñu moitié ñoom ñu fay moitié bi waaw ka fa nekkoon sàcc na xaalis presse yëpp dem tabaxi ko ay kër bi ñu ñaanee pour Macky Sall jëlee ko fa mu jëlee ko ba pare jox ko directeur ASALEM ku sàcc bu yokku sàcc la ah kon nag léegi dee nañu man nag dama mas a bañ kuy noot nit man ancien délégué personnel la ouvrier ouvrier laa retraité man gars yi la liste est prête est bi pare na est-ce que ñoo bañ ñoo lënk ñoo bañ ñoo lënk loo jàngee duñu ko nangu retour dañ ko nangu ay jo ay jo ay jo na ceeb bi waxi na ko danu ma bu yàggee tuuti kenn dootul ataaya libéré gi Mari ala laamu moo gasata ala laamu moo gasata Macky Sall wat seesee ay ca analyse waaw asalaamaaleykum les gars comme ni ñu ko waxee woon dafa am benn liste dañ ko dressé mu doon ay orateur ñenn ñi war nañoo disponible ñu yor loolu mooy daaw à Macky Sall qu'il est à l'origine de tous les scandales qui secouent notre pays parce que aujourd'hui parce qu'il maîtrise une certaine presse ils font passer l'idée selon laquelle que Guy Marius Sagna un terroriste s'il est un terroriste nous sommes tous des terroriste sommes fiers et nous sommes très honorés de défendre un terroriste comme Guy Marius Un terroriste qui a choisi de défendre les pauvres, un terroriste qui a défendu son peuple, un terroriste qui a défendu les travailleurs du PCCI, un terroriste qui a lutté contre la spoliation des terres à Taïba Ndiaye, à Cela montre que les étudiants sont majoritaires aujourd'hui. Et heureusement pour le collectif Nyolank, les étudiants ont bien compris le message. Nous sommes tous des étudiants et nous savons qu'à l'université, on ne paye pas de l'électricité. Mais chacun d'entre nous est ici dans une famille et nous avons des parents et eux, ils payent l'électricité. Donc nous sommes là pour eux. Nous sommes là pour eux. Nous sommes là pour le peuple sénégalais. nous ne sommes pas des corrompus kan lañ fi jox fukki dërëm pour mu ñëw kan lañ fi jox fukki dërëm pour mu ñëw dañoo ñëw parce que dañoo gëm suñu pays nous sommes là parce qu'on a foi en notre nation nous disons non comme tout le monde nous disons non à cette hausse des prix de l'électricité qu'on juge déjà sans fondement nous disons non nous disons non nous disons non dictateur Macky إلى تعلم damay daal di daaneel rek pour wax ni incha allah ñoo lank demeure plus fort que jamais et qu'à partir d'aujourd'hui on va les attaquer sous tous les fronts sur tous les fronts on va les attaquer gis ngeen déjà premièrement am na organisme défense des droits de l'homme yu mel ni Amnesty yu mel ni ligue sénégalaise de défense des droits de l'homme yu mel ni RADDHO yu mel ni article 19 am na travail bu am solo bi ñu entamé démb au niveau de l'international ca CEDEAO ca UNIFOR ca ca ca ONU pour que détention arbitraire u Guy Marius Sagna bi ñu dénoncé ko non seulement mais appelé à l'ordre le régime de Macky Sall. ngeen aussi diaspora bi Paris suba incha allah dinañu mobiliser wu. waa Paris gis ngeen waa Bruxelles démb mais bu ñu jogee ci loolu gaañi je vais terminer par dire je vais terminer par dire que nootre patience nootre esprit citoyen notre sérénité a des limites notre sérénité a des limites notre patience a des limites notre patience a des limites gaañi jaa ngeen jëf le combat intensifier. ay góor lañu ay sénégalais lañu ñun ay gaynde lañu ñun ay góor yàlla lañu eh, benn yambar mënuñu xañ suñuy droit benn yambar mënul téye doomu jàmbur na di ko bàyyi masla bi la fa masla bi la su sunu société